jotaay bi tey li nga xamante ni moom moo ko waral mooy euh, yëkkati sunu kàddu loo xamante ni senegal miin nañ ko ci ñun yëkkati sunu kàddu ngir jébbal njaal ci doomu senegal yi nga xamante ni jamono bii ñu bari walla ñu ëpp ci askan bi nelawutuñu ngir situation insécurité bi nga xamante ni am na ci réew mi maanaam ñàkk gi doomu Sénégal yi ñàkk kaaraange ci seen biir réew jéggi na dayo ba foo ko takk weesu na ko loolu nag ñu jàpp ne sunu cër la sunu responsabilité la ñu yëkkati ci sunu kàddu naqarlu ko ba fa naqarlu mën a yem daa di ne lii nag mënatul wëy ñi ci war a wax faw ñu wax ci ñi ci war a yëkkati seen kàddu faw ñu yëkkati seen kàddu ñun nag ñu jàpp ne booba ba tey gis nañ ne ñi siq pénc mi kenn ku ci nekk yaa ngi dajale way taskatu xabaar yi waaye ñu gis ne daal dafa mel ni kenn ku ci nekk rekk sa bopp dalaa gën a yitteel askan bi ñun nag comme askan bi moom moo tax ñu yëngu moom moo tax ñuy dal ñoom lañu bëgg a bëccëgal di leen guddil ñu jàpp ne lii nañu ko baaxoo woon di def yell na ñu yëkkati sunu kàddu woo ñi nga xamante ni ñoo war a saytu askanu kaaraange euh, askan bi ngir ñu gën koo bàyyi xel ndax lu ëpp tuuru te lii ëpp na ba noppi ndax euh, bi ma nee ñoo ngi yëkkati kàddu njaal dañu ci tànn ñaar ñoo xamante ni mën nañoo teewal ñi nga xamante ni yëpp seeni bakkan rot na jamono bi ci ñi ñu xam ak ñi ñu xamul am na ci ñoo xamante ni médias yi jot nañ ci ñoom am na ci ñoo xamante ni médias yi jotuñu ci ñoom ñu tànn ci Euh, kii nga xamante ni moom moo dëkk wakkaam ngeen koy dégg démb ñu faat ko faat boo xamante ni bu doy la muy Papignan ñu koy jaale ay mbokkam di ñaan sunu borom mu xare ko aljana yokk yërmande ci kawam ñu faat ko faat boo xamante ni faat bu doy la faat bu ñaaw la bu ëpp la bu jéggi dayo la mel ni nag réew mi dara xewu fi loolu moo yéeme dañuy faat nit te kenn ku ci nekk mën naa dal ci sa kaw niñ koy waxee li feeg dalul ci sa kaw nag da ngay jàpp ne loolu yow euh, da ngay jàpp ne ñeneen ñi rek ci ñoom lay dal ba muy dal ci sa kaw loolu moo tax mbir yu mel nii su amee ngeen min ko lool ci sunu kàddu ñëw digga woon ak yéen tamit ne leen nañu meloon ca toogaay ba nga xamante ni ñoo ko doon toog bii taxawaay bii nga xamante ni moom lañu bëgg a am tey dara du ci soppeeku bu dollikuwul du soppeeku mooy lañu ñu doonoon démb moom la ñu fas yéene doon tey waaye bu tey bii day gën a dëgër ndax xëy na démb ñun ñoo nekkoon ñun rek waaye tey dafa am ñoo xamante ni dañ ci ànd ak ñoom muy ay jàmbaar yoo xamante ni li ñu ñor li ñu yitteel moom moo leen yitteel kon faat gi ñuy faat doomu Sénégal yi mënatul wéy dafa war a dakk kiñ ci njëkk a interpellé nag mooy le ministère en charge de la sécurité publique gisuma communiqué dégguma ko mu wax dégguma leen ñu wax mel ni ñoom bu ñuy wax daal politique rek moom moo tax ñuy wax loolu nag ñu jàpp ne mënatul nekk waratul nekk dañ leen di xaar ñu jël ci ay matuwaay yoo xamante ni yu am solo lay ne ngir Papignan mii faatu gii mu faatu nekk loo xamante ni dina tax loolu dootul amati ngir nit ñi bu ñu génn seen kër seen xel mën a dal léegi sax nit ñi génnatuñ seen kër ngir ñu faat leen waaye nit ñi léegi dañuy toog ci seen biir kër sax ñu leen fay fekk di leen faat wala ñu toog ci seen barabu liggéeyukaay ñu leen fay fekk di leen faat kon fan la nit ñi di mucce léegi ki nga xamante ni moom lañ ciy tudd di soxna Kiné Gueye bi nga xamante ni tax na senegal ñi seen xel ñi am xel yépp ak ñi dese tuuti ci yërmande booba ba tey ci njaqari bu metti lañu nekk ba ku ci yónni fi mu ne nii sax sa njaboot mu toog ci liggéeyukaayam sa xel dalatul fa ñu jàppoon ne foofu la sécurité am kaaraange fa am ndekete foofu la kaaraange gën a ñàkk léegi Kiné Gueye amuñu dara lu ñuy def soxna Kiné Gueye amuñu dara lu ñuy def lu dul fekk ko ci barabu liggéeyu kaayam daal di koy rey rey bu ñaaw boo xamante ni jéggi na dayoo li ci gën a yéeme mooy mu fekk mu won lor waaye mel ni daal réew mi dara xewu fi loolu moo ci gën a yéeme mooy ni ñu ko banaliser. mel ni dañ koo ñàkkal solo mel ni daal lu normal la loo xamante ni warul warul yéeme daal bi fii soxna astu soxna wàccee liggéey fële ci Louga ci condition yi nga xamante ni ñëpp xam nañ ko foogoon nañu ne senegal yëpp dinañ jóg taxaw ngir aar jigéen ñi ci seen njàmbaar këre ñàkk bakkanam ngir am doom nga xamante ni di am doom ñàkk sa bakkan léegi daanaka ci suñ réew yi rek la des réew yëpp réglé nañ ko réew yi am solo yëpp réglé nañ ko di am doom ñàkk sa bakkan kii tamit deful dara lu dul xëy liggéeyi ngir wut lu mu am amul dara dara dara lu ñuy def lu dul fekk ko fa faat ko loolu jàpp nañ ne mënatul nekk te ministère en charge de la sécurité publique interpellé nañ ko ci ñoo ngi ko ci woo mu génn ci génn def déclaration wax nit ñi lan moo ci xew waaye mu génn dalal xelu askan bi ci ne loolu mënatul nekk mënatul nekk loolu lañ ne woon il faut que ñu tàmbalee ko li nga xamante ni moom mooy sunu waxtaan tey naqarlu ko ba fa naqarlu yem di wax ne Pape Niang ak Kiné Gueye ñoo siiw waaye Sénégal li fi am ci agression par jour kenn xamul ni mu toll am na ci barab yoo xamante ni tey jii kenn bëggatu faa dem kenn bëggatu faa taxaw ña fa dëkk seen fit mënatul toog timis ñu tëj seeni buntu kër ñemeetu ñoo dox ku ci sa njaboot nekk ci biti sa xel du dal loolu mënatul nekk il faut que ñu jël ci ay matuwaay yoo xamante ni matuwaay yu am solo la ndax bi nga xamante ni ci lañu ñu ne dañuy dund en société bi ñu jëlee sunu sunu ne kenn dootul dund ci man rek dañuy dund société dañu bëggoon na saafara ñetti mbir yu ama am solo bu njëkk bi mooy ñu saafara wàllu njàng mi ba nga xamante ni képp koo xamante ni gane na àdduna ci sunu biir li ñépp war a takku def ko mooy ñu fexe ba mu ci réer tey jii njàng moomu moo gën a sooxe ci réew mi réew mii ñu dëkk nit dafay gane àdduna du mën a am sax këyitu juddu réew mii ñu dëkk nit dafay gane àdduna këyitu judd mënu koo am réew mii ñu dëkk nit dafay gane àdduna dem ba jàng jot ci moom mënta jàng maanaam mënuñoo fexe ba mu deñ ci réer mënuñoo fexe ba mu liir ci benn làkk du ko def ci làkk bi mu nàmp mënu koo def ci làkk bi nga xamante ni moom la ñuy liggéeyee muy français muy arabe muy anglais maanaam nit mën naa génn juddoo ci réew mi ganee àdduna ci réew mi loolu yëpp ñu fexe ba loolu yëpp mënu koo def loolu jàpp nañ ne tamit mënatul nekk taxawaay bi ñu bëgg a taxaw mooy fàttali ñi nga xamante ni ñoom la ñu yónni fële ca péncum ndaw réew mi ne leen loolu mënatul nekk lii yéeme fi mu ne nii mooy rey nañu soxna Kiné Gaye rey nañu Papy waaye ndax dégg ngeen ci commission bu parlement commission assemblée nationale ndax dégg ngeen ñu yëkkati ci seen kàddu man de dégguma ko kenn déggul assemblée nationale yëkkati ci kàddoom loolu lu ma ñaawlu la coalition les serviteurs ñaawlu nañ ko ba fa ñaawlu mën a yem loolu du du yoon xanaa ñun fayetuñu leen xanaa yónneetuñu leen waaye yónnent kay dafay mat ndaw nag te yónnent yi day jotal li nga xamante ni moom lañ ko yónni kenn déggu leen ci dégguñu ci ministre bi. dégguñu ci assemblée nationale loolu jàpp nañ ne tamit mënatul nekk